ñoo daal di tase tey ngir waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante nii moom la liggéeykat yi di jànkoonteel fële ca poste syndicat bi génnoon di ñaax njiit yi. fan yële passé rek la ñu organiser une journée mondiale muy cent cinquantième journée mondiale de la poste. donc poste am cent cinquante ans ñun cent cinquante ans poste ñu koy ñu koy ñu koy célébrer dans le monde entier Sénégal poste am ñu koy laaj fu mu nekk liggéeykat yi amuñu dara li ñu amoon ci ak yëpp dem seen yoon. poste mi ngi dund ay jafe-jafe depuis ay at. jafe-jafe yi nag commencé di yàgg te di jéggi dayo jafe-jafe dem sax ba commencé ñu jural ay retard de salaire yoo xamante ne xamuñu ko woon. postu nekk ci guddi bu bës setagul lii di mel nag tax na ba ñoom ñile nelawatuñ ba yendoor. donc on n'attendra pas la mort de la post pour organiser des obsèques bu boobaa nag chaque euh, euh, chacun di plaider coupable ou non mais aujourd'hui c'est notre responsabilité. président Diomaye fay moom lañ gisoon ci programme am ci campagne bi mu boole woon ci benn pàcc bu yaatu ci post wax ne am na ay solution yoo xamante ne moom bés bu jotee réew mi dina ko indi ci post mu nekkoon yaakaar bu rëy si ñun te yaakaar boobu ba léegi tey moom lañ am ci moom. jamono ji nag lenn rek lañ daal di bëgg mooy ñu xool ana naka la ñuy def ba relancer waat activité yi. mooy caisse de dépôt et de consignation am na xaalis boo xam ne logé woon nañ ko fi mu concerné woon les épargnants. ñu ngi lancé fii suñu appel pour que ñu rapporter fonds yooyu pour que épargnants yooyu nga xam ne seen xaalis bu ñu denkoon la ñu mën a kenn di opération normalement ñu relancer activité postale bi parce que activité bi dafa nekk à lare bu leen post dafa nekkoon ci ambulance di ñëw salle d'urgence doon ñëw hôpital mi ngi ci salle d'urgence te li liñ ciy soxla mooy opération bi te kenn rek lañ ci wóolu fu mu nekk nii mooy chirurgien bi gën a mag moom la ñu wóolu ci poste mooy son excellence Bassirou Diomaye fay